إن الله وملائكته يصلون على النبي نسيت لك أول الكنينة ختم الكل للحين مفتاح الكنوز وختم الكل للحين شمس المعارف تاج العارفين ومن يحوي الفضائل نجل طه ياسين شعرك إذا قطب الوردان أبدا ولايتها خليفة الخير والمختار من مضر سر السريرة سلطان السلاطين رجاء خليفة الخير والمختار من مدرج سر السريات سلطان السلاطين رئيس أهل الهدى والبر فرقه شيخ المشايخ في الإسلام والدين شيخ الرئيس أهل الهدى والبر غرق هم شيخ المشايخ في الإسلام والدين أبو العباس أبو الفيض الذي بهرت آياته كل عقل ذاك يرى a jazaakallahu anna xayra waaw waaw nee na joxe na ko ci rasulullah dootu ko sol <laughs> أنا لو نال أجرا غير ممنون بشرى لآخذ هذا الورد سالكه من ناله نال أجرا غير ممنون من ناله ينال أجرا غير ممنون من ناله نال أجرا غير ممنون من ناله خيرا من ناله نال أجرا غير ممنون بشرى لأخي ذي هذا الورد سالكيه من ناله نال أجرا غير ممنون بشرى لأخي ذي هذا الورد سالكه من ناله نال أجرا غير ممنون anna lahu naala ajran ghayra mamnuni man lahu naala ajran ghayra mamnuni

أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين

yal na yal na yàlla taxawu leen yal na yàlla taxawu leen taxawu ñëpp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك ومجد وشرف على المبعوث rahmatan wa hidayatan lil alamin sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man iqtafa wa ihtada bi hadihi ila yawmi ddin ashaab al maali ayuha al ixwa fi llahi lillahi wa ila llah niyaabatan an cheikhi wa sayyidi wa habibi Sidi Ahmed Sy niyaabatan aqulu lakum assalaamu aleykum niyaabatan anhu aqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bu ñu musloo ci bakkan ak seytaane yal nañ ci yàlla boole musal ñu ngi ubbee wax ji rek ci turu borom bu tedd bi subhaanahu wa taala di ko sant bu baax di julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye di wuutu sama sëriñ ñu def ndànk rek ñu def ko wax ji baaxul yëkkati kaddu ci fu turu rasulillahi jibe baaxam day yàq lu bari hmm. fu ñuy tuddee yonent bi ba xas ba yëkkati turam rek wax fa yëkkati kaddu ci kaw turu yonent bi te parewuñu la ñuy def la muy yàq bari na lool ñu moytu ko bu baax a baax a baax waxuma ko nag pour kenn déglu waaye dama koy wax rek ba bu ëllëgee kenn ñu poñe ci kanamu yàlla ni waxoo ñu ko woon loolu moo ama ah. fi rasuli eh, am na ci bani israila nu ko aaya ba waxe woonati sax ah, lu'ina alladina kafaru min bani israila ala lisani daawuda wa isa bni maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin faaluhu la bisa ma kanu yafaluun di def lu bon ba pare seetaan keneen ku koy def tam woo wóor la ni kii la muy def lu bon la yaa ko doon def mu roy la ca baaxul nga ñàkk ko ko tere bu ëllëgee yàlla dana la poñeel boppam moo tax laa tarfaawu aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawli ko jahri baadikum li baadin an taxbata amalukum wa antum la tashurun fu ngeen fekkeeti rek ñuy wax lu jëm ci Seydina Muhammad lu ñu mën lu ñu mën ci teral ko ci màggal ko ci wet ko nañ wàññi sunu kàddu ba déglu la ñuy déglu ba pare ndax yonent bi kat yàlla garanti na lu bari ci ku koy def ci moom danaa ci ubbi tuuti rek jox sama sang ndax bër set na bër set na ba pare bala may nuyu Sidi Ahmed bi agsi ci moom damay bind ba si yàgg ma ubbi benn téere ma bindee ba ci alhamdulillahi waxda ma gis ñu ne fallahu mahmudun li zaatihi mahmudun li sifaatihi wa mahmudun li niamihi wa wa mahmudun li rahmatihi wa mahmudun li manhajihi wa mahmudun li qadaihi allahu mahmudun qabla an yaxluqa man yaxmadu wa min rahmatillahi subhanahu wa taala waa ji moo bind ba tey de di wax innahu jaala shukra lahu fi kalimatayni jaala shukrahu fi kalimatayni taxmilu sanaa sanaa al aajizi an shukri li kamalillahi wa ataihi sunu borom subhanahu wa ku màgg la damay bind sànq baas si ci alhamdulillahi waxdahu ni ma waroon a continuer rek ubbi benn téere gis waa ji yàlla de ku ñu sant jëmm jëla ku ñu sant melo wala ku ñu sant it ci xéewal yi muy dotti te yemalewu ko fenn ci ñëpp la ko yemal wa mahmudun li rahmatihi yërmandeem it dañ ko cee sant bu baax a baax méthode bi mu tëral pour doomu aadama jaar ci mucc it doomu aadama bu nekk war nga cee sant ni muy atte it ku maandu la ci atteem xam ngeen tribunal bii rek lañuy dem ñu naan diw ministre la waaye Seydina Ali ba mu réerlee te ko ko far feey ba mu demee ci xaar bi ba ba mu war leen atte lan lañ def doomi soxna yi xam ngeen ko dem si di ah, Seydina Ali dem naan te ka muy xëccoon du jullit te yëfam a réer waaye xamul fu mu ko réeree waaye wóor na ko yëfam la ko laajee dalil bi nga xam ne ci la war a tegtalu mu ne ah, foofu nag xamatuma fu ma wadde ñu atte jox borom jox waaja ni ko yaa ko moom waaja toog daal di lii daal ci lislaam rek la am ashhadu an laa ilaha illa la yëfi yëfi àll yi la waaye waaye dafay dugg si rek avocat bi ni ko kat da ngay summeeku teg fële dara jël te ñoo toog yàllaay àtte du man maay àtte foofa ba tax tribunal ku fay dem bu fa yóbbu daraja boo fa yóbboo daraja ñu jox la loo moomul nga lekk ko yàqu ba faaw wóorul ba ci Fatima waaw waaw Seydina Muhammad nee na Fatima ci boppam bu jëloon lu mu moomul ma dagg loxoom atteeb yàlla la summa ja'alnaaka ala shari'atin fattabi'aha waaye wala tattabi ahwa alladina laa yaalamuun ñu bari dañu jàpp ni alquran yonent bi ak koy ommat or que alquran mooy ommat sayyidina muhammad bu ko nee defal mu def bu ko nee bàyyil mu bàyyi moo tax kaana quranan yutla bayna yutla aw kaana quranan yamshi bayna naas boo ci wax mu dem kuy wax ci yonent bi rek yaa ngi jàng alquran dañu laaj sayyidatuna Aïcha ni ko dañu bëgg nga wax ju kan mooy sayyidina muhammad mu ne quranan yamshi bayna naas alquran ju daan dox la fu mu toll ci alquran bu yëkkatee tànkam ba teg di nga xam ni ci aaya bii la si yonent bi di dox kooku nag la yàlla booleel moo tax ñuy sant yàlla bu baax waa ji ni yàlla kat sant nañ ko ba mu bindagul ñi koy sant sant nañ ko ba mu gindagul ñi koy sant léppam cant la bi ko nit ki bi nit xamul nu muy sant yàlla yàlla jàngal ko nu muy sant yàlla ñaata sant la war a sant yàlla ki la defal xéewal nga ne ko jàkk xamoo loo koy wax mu ne waxal lii ñaari baat yu xam ne yii oyof na ci làmmiñ waaye yu diis la waxal alhamdulillah ndax góor gi ndeysaan mas na ma koo fi firil mooy Cheikh Alxaaji Abdul Aziz cant gi yàlla sant boppam ak gi mu sant jaam yi ak bi ko jaam yi sant ak bi jaam yi santante waaye yépp yàlla moom moo tax yàlla ñu yàlla defal tawfiq ñuy sant yàlla bu baax nag di julli ci Seydina Muhammad di ndaw lu bari yërmande moom Seydina Muhammad képp ku julli ci moom ci xeetam kataballaahu lahu ashra xasanaatin moo tax li ñuy wax ci yonent bi nañ ko dégg boo jullee ci yow benn yoon yàlla bindal la fukki yiw faral la fukki ñaaw teef wallahi abdul aziz abdul aziz dama bëgg profitoo rek dama bëgg a profité jazakumullah jazakumullah am na am na am na bayablu am na koo xam ne bu ñëwee dana ko firi sang bi sang bee sang baa ngi fi ñu may ko rek bu ñëwee dana firi lépp dama bëgg a wax tuuti rek jox ko te yàlla du yam rekk ci faral la bàkkaar bindalu la rafet waaye day yëkkati sa daraja te nit bu wàcc bu yéegul rek muy wàcc yàlla ñu yàlla musal ci wàcc nit bu yéegul rekk mu ngi wàcc te la koy wàcce du dara lu dul bakkan moo tax jullit fu mu toll war na yëg yokkute ci moom jullit fu mu toll war na yëg ni mu ngi yokk ci digganteem ak boroomam alladina amanu zaadatuhum wa ala rabbihim kon ñoo ñoo ngi yokk ñoo ngi yokk nit jullit day yëg ni mu ngi gën di jege yàlla waaye warta yëg ni mu ngi gën di sori yàlla te lu muy gën di jëkk di gën di jege yàlla yàlla di ko ubbil buntu xéewal ba dootul xel kenn ku dul yàlla looloo daloon Cheikh Alxaaji Mouhamadul Mansour radiallahu taala anhu moo tax mu ne ay waay waay waay mbokk sama ñu ne mu ne ah mu ne ko ah mu ne ala innamal a'malu bis sabri wat tuqa waaw jëf yëpp a ngi aju ci ñaar ci tolérance ak ragal yàlla mu ne nag wala taltafit boo dee doxati jëm ci yàlla bul geesu gis keneen lu tax mu ne innal karima xayru gor yi fii ci la ko yëkkati te kuy xool yàlla nag boo fi xoolaatee alaji Maalik tooñ yàlla waaw waaw ilaa man taltafitu ilaa xayri minni yàllaa ngi naan kii ni ma jàkk ma ni ko jàkk muy geesu di xool keneen dangay xool ku ma gën amatul moo tax góor ga nee na gor du geesu ñu ne ko lu gas lu tax mu ne bu geesoo du àgg fa mu jëm benn bindkat nee na kii julli réseau ak yàlla ubbeeku na réseau waxtu woo geesoo xoolee na rek yàlla dagg réseau moo tax téléphone yi nekk ci biir jàkka yi li ñuy yàq ci benn sonné rëy na lool xam nga ni bu téléphone sonné ilimaan nekk ci jàkka ji ilimaan nag maamum yéeg ñëpp danañu sentir ni téléphone am na donc kon dagg nañu seen diggante ak seen borom moo taxoon ñuy wax ni kuy julli bul dugal ñaari dërëm yuy yëngu ci sa poos fas ko ba du yëngu ndax bu yëngu rek sa xel dem ci ah moo tax bari nañuy wax ak yàlla ba ci biir mu ne kappit nga nekk fa naan xam nga booy lay wax ak ku la dig dara ba si yàgg réseau bi ne kappit dootu am sago fii ak réseau bi dellu siwul kon ñun ñëpp ñu góor góorlu waa ji dama ko wax Abdul Aziz léegi damay bindaat ba agsi fii sama xel ni yan xulil la di yabxi najaa waay waay ku bëgg a mucc àdduna mucc ëllëg mucc àdduna gu ànd ak alal ju dul jeex mucc àdduna mucc ëllëg àllaaxira gu ànd ak nga yóbbaale say mbokk yépp aljanna ñu ne ko nooy def mu ne alayhi aksiri salaa jullil ci yonent bi rek baril ko lool di nga jàll jàllale say bokk mu ne bul mu neti ko bul ragal kenn nag bul ragal dara lu lay lor fa hiya shifaun lis sudur lépp lu nekk ci xol yi jaaxal la boo jullee ci yonent bi mu faju waraw du kulli zakiri waaye ku nekk ci moom yàlla ci tool bu naat loo yootu ñam lay doon sallallahu alayhi wa sallam sunu maam Serigne Touba wax ko tabaarakallah مدى لنا الإسلام والكفر معا وبالنصيحة لكل سماع يقود بالسائر والباطن عن سمام لنسي يقود بالسائر والباطن عن عداه لله في كل زمن خدمته عن الغلو بالصباح والإسلام وصفا وعبا لبارة كون المصطفى رئيسا lii baana kawnul mustawa bu sopp sayyiduna muhammad nel ni sallallahu alayhi wa sallam lii baana kawnul mustawa reisa li kulli man qad fujjira rawsa وقدمه فوق كل رقبة من وسار الحر كل مرحبا محمد الرسالة ولم ياتي في من مدى وابدا لا ياتي كسب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أثقل النبي المنتهى محمد خير الورى المختار عند الصمد جزاكم الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامات خير القليل أن خير بها محيابة فانتحر عن سورة كالنجم محمد المختار لا خمخ مثله عليه السلام ما من والغمر كالنقم جزاكم الله عنا خيرا سين بوك سين بوك سين سوبي seen lépp mu ngi dëkk ak yéen Tiwaawan di sët ci Baye Cheikh kër Baye Cheikh Marouba tabaarakallaahu sopp kër gi lool nag di ñëw fu ñu dem ñu daje fa ak moom waaw dafa dogal sëriñ mii ak Seydina Muhammad ko bokk ñoo lu bari jox ma nit ki bu la defalee teraanga da koy wax. ñoo ko bokk yaa ko moom morso ganji laa jox ma teg ci ceeb suukar ak xaalis bu bari ni ma sama xas day maam yi nga yëkkati ci laa la ko joxee. waaye bokk ñoo ko bokk ñoo ko bokk. la xaar yàlla xar ñoo ko bokk jërëjëf Ahmed ñoo ngi lay ñaanal bu baax. jërëjëf barke Seydina Mouhamed. sallallahu alayhi wa bari ci sëriñ yàlla boo am ndox ci barke sëriñ amin amin yàlla nañ ko yàlla boole defal ñu wax si bi yàlla na yàlla yàlla nañ fi yàgg amin yàlla ko yàlla ba eh dina teew yàlla nañ fi yàgg ci barke sëriñ yàlla yàlla yal na fi yàq baax na baax na baax na baax na Abdoul Aziz baax na eh. Abdoul Aziz bàyyi leen coow li bàyyi leen coow li ñu ngi ci rasu ñu ngi ci rasulillahi li ma waxoon rek lay waxaat ñu ngi ci rasulillahi nañ dem ci yonent bi rek lii xew yëpp mooma bu Cheikh Al Hadji Malick demee ba jël yonent bi def ko muy soppeem mu tagg ko fu mu ko mën a fekk ba Seydi Al Hadji Malick ñëpp ràññee ko ngir yonent bi kon lu xew yonent bi la seen maam Serigne Touba tudde boppam xaadimu rasul tabaarakallaahu yàlla ñu leen yàlla fayal lépp lu la jafe lépp lu la jafe ci àdduna jullil ci sayduna muhammad mu jàppani min kulli saabin naadiri di nga toll ci jafeñ jafeñ ba nga ni doola dootul sotti boo ne allahumma salli yàlla ne yaa waa ci sama soppe bi daal di lay defal la nga bëgg moo tax salaatan taftaxu lana biha abwaab alxayraati walbarakaati walrida walarzaqi walrida waltaysir wa tuxliqu biha ana baaba alcharri walchaqaawati waldalalati waltuxyaani walkufri walfaqri walmacsiyati walmadarraati watacsir wa takunu lana biha waliyan wa nasiran fi diinina wa dunyaana anta waliyuna wa mawlana fa nicma almawla wa nicma alnasir kooku mooy sallallahu alayhi wa sallam boo defee sa njaaxum ba ñëw tiit ba yaakaar ni bunt yëpp tëj na boo fëggee bunt buntu Seydina Muhammad bu fëggal la yàlla mu ubbil la jéggal la lépp loo ko ma a def moo tax biha tuqaalul asaraat njuum te njaaxum goo def ci sa diggante ak sa borom lu mu rëy rëy boo jaaree ci yonent bi yàlla jéggal la moo tax yonent bi rek kenn lu ma moo tax ba ma ko sàllaloo la may dal dal ma ba léegi fu ma déggee ku koy sàllaloo sama fit day day rëcc dama ko mës a sàllalu rek seen baay bii nekkee moom xajatul laylatul qadri wallahi xajatul ci jàkk ji sëñ Abdou xajatul ci jàkka ji ma naan Muhammad Muhammad Muhammad gaa yi naan ma waxtaan wi neex na ma naan Muhammad Muhammad Muhammad mu ne maxtaar dama bëgg waaj yi yóbbu ma ma waaj yi ndeke góor gi xajatul ci jàkk ji li may wax Muhammad rek seen <laughs> eh, mag ñu nag kenn ku nekk naan ma sëriñ sa waxtaan wi tey fa tabarakallahu si yal na yàlla sàmm yàlla man defa ni man maa toj <laughs> dëkk bi dugg sama néeg rek Pa Maxtaar Kébé nee na sa papa daal nee na tooñ nga ko tey lool ma ni ah man day doy na waar Aïda Sy mi ngeen tudd fekk na mu defal ma benn intervention ci góor gi góor gi bu ma ko daan def dara rek ci saa si mu daal yëngu mu ñëw rek Abdoul Aziz ni papa mu ni ma déedéet bu mu ci dal nee ma Abdoul Aziz rek ma wax wax góor gi ni ma bu ma waxati mukk papa ne ma Abdoul Aziz rek comme que yaa am fitu sàllalu yonent bi yaa ayuha nabi ku ko wax ma ni ko yàlla yaa ayuha rasul ku ko wax ma ni ko yàlla yaa yaa ayuha muzammil ku ko wax ma ni ko yàlla yaa nga naan nag Muhammad demal nga seet nooy def sama sama guddi keroog mel na ni téeméeri guddi waaye nag wax na dëgg nit da koy teel a jàjji balay sànku waaye jël jël arab rek tel tel tel làkk arab mu neex nga naan muhammad muhammad rek ka duaa baadukum bon yamuñ leen mukk mu topp ma ci topp ma ci bu ma ko ne papa du ko nangu bu ma ko tàllalee loxo mu ni ma marxaba kii xam na marxaba yu góor gi ma jaaxle lool Abdul Aziz ba mu wàcc loo ma nag ay kaamil daal ni ma yonent bi du morom yonent bi du moroom yàlla defu ko muy moroomu kenn yonent bi tax ñu bind ñëpp yàlla moom rek la am qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah moo tax yonent bi lu mu def lu mu def rek lu mu ràmm rek yàlla def moo tax mu ne képp ku dégg kuy nodd rek noddal ba pare ñaanal ma ma am maqaam yi nga xam ne maa ngi koy ñaan ëllëg ma mën a ràmm ñëpp tax na yàlla ñu yàlla defal tawfiq maa ngi arrêté léegi nag euh, danaa nuyoo nuyooguma damay julli ci yonent bi rek waaye nuyooguma képp ku bëgg a yokku ci sa digganteeg sa borom wala ci sa digganteeg sa wàllu àdduna bari loo julli ci Seydina Muhammad daraja joo amoon yàlla dana ko triplé nga àgg ci fa tabarakallah moo tax fa xub fa xubbu hada al mujtaba ribxul li kulli taajiri kuy def commerce ak nu commerce ba mel boo jullee ci yonent bi sa lépp baax commerce nag ay façon la bokkul ak ci bitig bi bokkul la li ngay jaay am na ñoo xam ne ñu ngi ciy dox ci digganteeg seen borom commerce la waaye am na ci ñoo xam ne wutuñu ca dara nag am na ñuy jaamu yàlla wutuñu ca dara ngërëmal yàlla rek am na yàlla kontaan dañ leen a bind rek pour jaamu yàlla yàlla ni ñu nekkoon ñu ngi jaamu yàlla waaye wutuñu ca dara benn jigéen dafa wax benn waliyu ni ko looy def fii mu ne ko damay sant yàlla mu ne ko sant gi loo ciy wut mu ne ko yokkute mu ne ko kon kan yow sant yàlla da ngay jaay kuy kuy sant yàlla doo ca wut dara tabaarakallaahu kon ñu ñëpp ñu góor góorlu ci loolu bu baax a baax te jéem a wut yitte nag ndax yonent bi mënuñu ko bëgg te xamuñu ko nit mun te bëgg lu mu xamul bu yàggee rek nga nekk ci leneen suñuy wax nii ci biir nit ñi buñ dee gàmm li tax rek ñàkk xam kan mooy rasulillahi waaye ku xam kan mooy rasulillahi foo ko déggee di nga fottas mën ngaa nekk ci wanag doo alquran yow ko jàng foofu waaye boo déggee rasulillahi la wax sallallahu ngay wax julli ci moom yàlla nga ni wuutuma defal ma ko ndax seetuma kon ñu bàyyi ci xel bu baax a baax màggalaat ko nag taadimuhu waltizaazul xiina comme kooku am na lu mu ci wax waaye sama sang ngi ñëw léegi wekkan mooy Seydina Muhammad sàmmal ko ay xaqam bu baax a baax a baax ñii toog ñii ci suñu wet nii ñooy ñooy ñooy sang yi ñooy sang yi ñun ay seen surga rek lañ moo tax inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadhiran wa siraajan munira yépp yàlla nga koy wax kon ñun ñi fi toog ñépp bu yàlla weesoo ak sayyiduna muhammad war nañu sant Sidi Ahmed ñi ndax lii lépp ni ko Abdul Aziz waxee moom te lii mbokk yi nañ ko ci ñaan yàlla dootul fay dootul fay ndax daf ko teg ci tànki mag ñi Cheikh Alxaaji Abdul Aziz toog na benn guddi dégg ñu maag moom ñuy woyantu mu génn tëdd ci bunt param bi ak góora si moo tax waxtu wu ñu ne gàmmu faas rek ma fàttaliku sama moom ak Sidi Ahmed ak góora ñu toog gi gi woy ba si ak góor gi génn di aw moo tax looy looy def rek am na am base na am foo ko tibbee moo tax lii ku ci jàpp mu dem ku ci jàppul mu dem sans waa Fass la nag yàlla leen ko séddee ñu ngi sant Sidi Ahmed mais ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax daal dinay dugg ci taarix islaam ya ndax lii day yokk diine day yokk islaam day yokk xamante jullit yi waaw loolu yëpp nag wutu ci dara yàlla rek la ciy wut ak dundalaat li nga xam ni moo moo sos kër maamam moo tax wa waajibu taatul haadi mahabbatuhu waaw nga toppaat yëpp kon Sidi yal na yàlla lafal cet ndax sa papa bu daan wax ak ñun ba si yàgg def naa allahuma la adur ndax ragal làmmiñ bu daan wax ci ak ñun ba yàgg te wax ci jëm si ñun def naa yàlla yàlla bu ma lor tabarakallahu noonu la waxee soxna Ayda benn bis ñu toog ma di ko tooñ mu ne mooy ummul muminin mooy ndeyu jullit yi Ayda mooy ndeyu jullit yi fii ci kër Cheikh Al Hadj kon loolu mu def am na fu mu jóge am na fu mu jóge am na fu na fu mu jóge yàlla sax nag ñoom ñëpp noonu la ñu mel waaye mooy seen mag tabaarakallaahu loolu yàlla na yàgg te sax ñuy fàttaliku juddu kan Seydina Muhammad waaye assababu yéen usul yun yéenay wax ni assababu huwa ma yalzamu min wujudihi al wujudu wa min adamihi al kooku bu ñu demee ca sunu sëriñ dana ko def kon Sidi Ahmed royuwaay la royuwaay la ci lii képp ku bëgg lu baax te dëkk tund wi war ngaa roy Sidi Ahmed ci lii nit ñun ñëpp dañuy wax ni nañ roy Seydina Muhammad yàlla bëgg sunna Seydina Muhammad dund te ña koy dundal tey ginnaaw Cheikh Al Hadj ak mbokk gi Sidi Ahmed mii ci la bokk yàlla nay muuram yàlla nay muuram mbokk yi ku ciy wax. wax ci lu ku ci xalaat it xalaat ci lu nangam nangam nangam nangam nit day rafet njort ah nit ijtanibu kasiran min al-zanni inna ba'da az-zanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan kon Sidi Ahmed roy waay la ci roy waayu njabootam yi te képp koo xam ne ki ñëw nga tey ci lii jaxasoo ak nit ñi boo génnee fii danga war a nekk royuwaay ku mu jaxasool danga bu gén bu demee bàyyi la danga war a nekk royuwaay ku ñëw ci pénc mi tey jóge fi tey dem war nga nekk royuwaay ci Seydina Muhammad nekk sa royuwaay waaye nga jaarale ko ndax man na sunnatan xasana falahu wa ajru man tabaarakallah yal na ko yàlla fay yal na ko yàlla fay kon bu ñu dee xool woote yonent yëpp yonent yëpp lu ñu woote mooy lan ambiya ak yi yëpp lu ñu woote mooy lan hmm? jaamu yàlla ñoom ñëpp ñëpp ñëpp jàmm yàlla la ñu woote amul kenn ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru ubudullaha waaye maalakum min ilahin xayru ñaari tomb bokk waabudullah ibaada boobu ci la waaye maalakum min ilahin xayru itam tomb la kon la sharika lahu fi xayaati bul boole yàlla dara ci sa dund bul wéeru ci kenn ku yàlla bul topp bul bul jaamu kenn ku dul yàlla ñaar nit ñi dañ koo dañ dañ koy jaawale al ibaadatu wa taa taa danañ ko def ci ku yàlla moo tax atiu llaha wa atiu rasula wa ulil waaye abudullaha wa abudu rasula jaamu lu koy def lan mooy jaamu xol xol mooy jaamu lan mooy topp cër bokkuñu xol mooy jaamu waaye cëree topp moo tax yàlla xajul lu dul ci xol kon ñun ñépp ñu garanti ñaari mbir yooyu bañ a bokkaale yàlla ak dara am na benn mag muy yàlla baaxal waaye mu fàtte benn bis rek toog ni alhamdulillahi rabbil alamin ci biir mag ñi te mag ñi ku wax ku sant yàlla ci seen biir ñu laaj lu waral fii rek ngay dégg léegi alhamdulilah yu bari lool te doo laaj borom lu ko waral waaye mag ñi ku sant yàlla ñu ne baaxee ñu wax ñu lu tax ngay sant yàlla mu ne dama yëg ni fii ma toog ba ma xàmmee léegi musuma bokkaale yàlla ak dara ci saa si rek benn xaatif ñëw kut fii ñëw rek ñu ko soow ma fekk dañ ko jox mu lekk ba suur naan teg ca indil ko soow mu ne bu naanee soow mi soow mi lor ko loraange ci loxol yàlla la nekk wala ci loxol soow mi moo tax xoola sew sew boobu ab te koo wax mu ne man bokkaale ak yàlla dara pour kàddu yàlla dara wóorul ko defee ñun ñëpp ñu bokkaat topp yàlla bu baax a baax yàlla ñu ci yàlla xiir nag e, moo tax yàlla bind nit bind ko pour àdduna wala mu dund daf ko bind pour mu yëg ni jaamu yàlla la fexe it ba li ko yàlla binde ci àdduna dara bañ cee manqué àddunaam bañ a manqué alaaxiraam bañ a manqué moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni laysa xayrukum man taraka dunya li ajli l axira wala man taraka al axirata li ajli dunya bal xayrukum man jamaa baynahuma ki gën ci yéen du ki bàyyi àdduna pour ëllëg du ki bàyyi ëllëg it pour àdduna ki gën ci yéen moo mooy ki boole ñaar yi wabtaxi fi ma ateeka allahu waaye wala tansa nasibaka min addunia wa ahsin foofu la gaa ñi fàtte léegi nag mu lay déggatoo fenn fenn asaka wala yéen a koy dégg yéen waa Fass aset par foo koy dégg léegi kon amuñ ci dëkk bi ñiy def commerce ak ñëpp kenn du ci génne aset moo tax pour ñu dem dana jafe pour ñu dem dana jafe lool pour nit am xaalis mu continuer di law dana jafe lool xuz min amwalihim tutahhiru wa tuzakkihim wa salli inna salawaatika kon ñu bàyyi loolu xel bu baax a baax yàlla daf ñu bind pour ñu feeñal ci suñu jëmm ne ñun ay jaam yàlla lañu bañ a tardeel dara ci suñu jëf ak ci àdduna àdduna li fi nekk yàlla daf ñu wastaamarakum kon kañ war ñoo sàggan war ñoo sàggan ñoo ëpp ci àdduna waaye ñoo gën a ñàkk ñoo ëpp ñun jullit yi ci àdduna waaye ñoo fi gën a ñàkk metti na Sénégal gi jullit yee fi ëpp mais ñoo gën a ñàkk te yàlla bëggul jullit bu ñàkk qul man xarama zinata allahi allati axraja li ibadihi wa tayibaati min arrisqi qul hiya lilladina kër gu rafet ku ko moom jullit col gu rafet ku ko moom jullit oto bu rafet ku ko moom milliards yi ku ko moom moo tax aqimu salaata wa wa aatu boo ko amul foo koy jaare seen maam Cheikh Al Hadj dégg naa joxe na ko dar su benn bis di jàng ba ak ci mu salaata daal ah, loolu de ñu ngi ci waatu zakata nag nañ teg téere yi dem liggéey ba génne ko ba pare di continuer téere yi rek nañ leen liggéey yi génne asaka soog di continé waaye njàng mu dul sotti njàng moo dul jëfe fii rek la bàyyi alquran ji day neex lool woy yi neex lool ñiy déglu di onk ne bari lool waaye bu ñu paree rek fële yëpp di yem Abdul Aziz yàlla nee na ku kan mooy xaramal li yàlla bind yàlla nee na àdduna ak li ci biiram yëpp jullit a tax mu wut ko waaye yéeféer taxul jullit yee sàggan sàggan ci domaine yëpp xoolal xoolal mag ñi nekkoon Tiwaawan xoolal mag ñi nekkoon Tiwaawan ci wàllu commerce ñoom góor gi jokkeel caw ñoom ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk taxaw taxawaay boo xam ne bi rafet lool Sidi Hadj Malick di jëflanteeg ñoom di leen jaayloo ñuy jaay di jënd xoolal suñu baay Habib fu nekk dem na xoolal Cheikh Al Hadj Abdoul xoolal xoolal mag sëñ Babacar ñoom ñëpp lañ doon liggéey waaye ñun ñëpp addiya lañuy ñuy xaar ah. moo tax lan mooy suñu téere alquran wóor na alquran mooy sunu téere te alquran dafa songu bakkan so songu bakkan pour pon bakkan yi jóg bañ a bañ a detteelu waaw mu yëkkati ko rek pour mu dem ca kaw bu bakkan joxee boppam moo tax alquran moo tax mbokk yi ci coobare yàlla ku demul na ci ñun la waaye du ci yàlla ah inna hadaynaahu imma wa imma kon ci kan la te nag li ci gën a neex mooy forcé kenn kenn ku nekk yàlla def la bind ba pare war la li baax bàyyi laa ak sa liberté nga am sa suwaa kenn ku nekk yàlla def la bind ba pare laa ikraha afa anta tukrihu naasa xata takunu munu nekk maa leen bind jox naa leen xel jox naa leen jumtuwaay bàyyi leen ñu def seen choix waaye ku liggéey lii lii ngay am ku liggéey lii lii ngay am mooy amal ah waaye wa ngay amal xayran wa may amal misqaala charan moo tax alquran a ngi wax ni yaa bani aadam imma yaatiyannakum rusulu minkum yaqussuuna aleykum ayaati faman ittaqa wa aslaha fala xawfun alayhim wala hum yaxzanun alquran yàlla bind daal di eey yéen doomu aadama yi yónni naa ci yéen ay ndaw képp koo xam ne ki moytu nga tar rafetal sama diggante yow yéwénal sa jëmm bul tiit ëllëg aljanna nga jëm waaye walladina kadabu bi ayatina ñi taxaw lànk féetéerlu nag ñoo ñëpp seen mbir waaye man yàlla ka cet ma ci loolu mu ngi ci suuratul aaraaf yàlla ne ulaayika asxaabu néer yàlla nañ ci yàlla boole musal moo tax nit dafa war a toujours am dund dund équilibre équilibre nga xam day toppatoo ruuxam di toppatoo àddunaam waaye topp rek sa bakkan dem ba ba bàyyi ba tànne la ndax bàyyi ma amul xel ulaayika kal balhum ki yor xel ak ruux ak yépp di dem te jëfandikoo wala xelam yàlla nee na yaa gën a réer bàyyi ma bi amul xel moo tax nit ki bu defaree boppam defar loo foofu la ñuy waxee al dañ koy génne ci insaan nit ak nite bokkul dañuy wax ni nit nitey kañ bu nitee ci lay nekk garabu nit waaye nit ku nitewul ku ko topp mu mu dof loolu kon mbokk yi yàlla ngi wax lu bari benn bi watlu alayhim naba alladi aataynaahu ayatina fansalaxa minha fa atbaahu sheytaan fa kaana min alxaawi walaw shina la rafanaahu biha walakinahu axlada ila l ardi wattabaa hawa fa masaluhu ka masali ñaaw na ka masali kël nit a ngi dem ba ne xam yóbbu ko ak bëgg-bëggam ba mu mel ni xaj di appaat xam nga xaj fa mu toll nga du suur mukk loo ko jox bu ko paree rek wut leneen moo tax bakkan fi mu toll ñii wut alal te xamuñu lu ñuy wutee alal dañuy dem duñu suur mukk lu alal ji gën di bari rek mu muy gën di dem lu xarit gën a bari it ñuy gën di xarit yi ma wax nag mooy xarit yi xarit yooyu doo doyal ci kenn moom foo ko gisee rek daan waaw mu nga moo tax yàlla ñu yàlla jàppale bu baax a baax a baax moo tax yeneen bi sa yàlla wax ko ni waxal ñu may waxal te nga dumooyu te ñu dumooyu la waxal ak ñoom lii may wax ñépp a ko bokk kenn ku nekk boo bàyyee sa bakkan xam nga na nafsul amara bi suu gaa yi dañ ko tudde seytaan waaye mag ñu ci bari nee nañu la seytaan mooy mooy mooy bakkan bakkan la yàlla ñu ci yàlla boole musal yàlla defal ñu tawfiq bu baax a baax ñu delluwaat bàyyi xel yàlla nañ dellu bàyyiwaat xel yàlla nañ dellu bàyyiwaat xel yàlla ñun ñëpp yàlla soxorul bu ñu bëggee alal yàlla la ñuy tàllal loxo bu ñu bëggee wér yàlla la ñuy tàllal loxo loolu nit bëgg rek yàlla ngay tàllal loxo boo demee tey ba nekk ci avion buy yëngu koy tudd boo tudd boo demee ci géej gi gé ah, yàlla rek mais boo ci génnee sëñ bi du yàlla nga defee ñoom ñëpp ñu bàyyi xel ci loolu baax a baax yàlla daf ñu jox xel xel maa ngi koy wax barki démb ci gàmmu xale yi at taaqulu wa tabassuru wa tafakkuru wa tadabburu wa tazakkuru wat taaqulu wa tas yëpp yàlla nga koy wax pour xel ñuy liggéeyal suñu xel waaye xel yi léegi est-ce que ñu ngi ko jiital te xelu kese doyul am na bindkat yoo xam naan alxasanu ma ma xasanahu al aql te déedéet téere téere yee fi nekk di ommat xel téere yee koy leeral kon ñun ñëpp ñu toppatoowaat suñu xel toppatoowaat suñu kàttan li ñu yàlla teg ñu taxaw ci lu ñu mën ci jaamu ko jaamu gu ànd ak xel ba ñu nekk rek jaamu goo xam ne gi da ngay def pare rek génn ci yàlla jox nañu liberté pour ñu jàng appliquer li nga xam ne moom la ñu jàng ci suñu biir bañ a jàng bu jàng amee nga daw dellu si xam nga liñ continuer génn ko yenn saa yi wàññiwul dara waaye boo génnee dellu si nga dellu siwaat mais boo génnee ba ñu jàppale nangu sa carte d'identité ndax di nga ci war a jotaat ci yoon ah te ñuy génn si di ñuy génn ñuy ah. waaw waaw ah am nañu gan amoon nañu ay nit teral leen waaye ñoom ñaay njëkk laaj addiyee shérif waaye yal na ko jëfe rek saada wa zikruhu si ziyaada yaa fawza yaa fawza xibbin zakiri wallaahi nee na ñu yore nee na mu laay daf jox kayit bi nee na tagg yarant bi jaamu yàlla la sopp ko texe la di ko tudd foo toll yokkute la ci yow kon nag nañu koy tudd bu baax Abdoul Aziz hadiye Chérif daaw góor waxuma li ngeen woy de li ci seen poste génnewul ci woy yi laa wax yooyu laa soxla yàlla xam na ko nag bu ko kenn jox wekki jox ma Abdou Aziz jox ma lu dunde de mbaay Aziz jox ñëpp laa jël xale yooyu kenn ku nekk Seydi Ahmed jox ko Seydi Ahmed waaw laa jël xale yi kenn ku nekk ma xam la mu joxe kenn ku nekk yéen ñi am ci Seydina Muhammad yéen a njëkk génn tey jii فبيدته تباع أخي بألف فما للفرخ في بيع الكلام فبيبته تباع أخي بألف فما للفرق في بيع الكلام مريد القلب شيخي لا القوم ينال به بغاية ما يرام فبيدة تباع أخي بألف فما للفرخ في بيع الكلام فما للفرخ في بيع الكلام gaa ñi góor ñi bëgg naa ngeen yëg ma nag de. góor jigéen ñi yëngu nañu bu baax a góor ñi gën laa bëgg nag. am rajo bi. Eh, daayira bi. daayira bi. ne eh, ana président. président. Sidi Ahmed ne ana. bu waa daayira bi sëñ Ahmed ne ngeen ngeen ñëw. ne bu ngeen mu démissionné. jël rajo ay mu ngi nii am. mbooloo mi sëñ Sidi Ahmed nee na waa Fass waa daayira bi nee ngeen ñëw nee bu ngeen ñëwul nag mu démissionné nee te comme déwén kenn du gàmm te ngeen cee jàpp yéen gan ñi ndax bu déwén nañu gàmm ñëw leen nag gan caaxaanul de la béy wóolu yàlla baax na de suñu bakar ne wóolu yàlla baax na de te yàlla nee na wa yuusiruna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa baax na ci de ne aaya boobu yéen a ko dégg nee na noonu mu ko baax na ci de ah kon nag yàlla tàllal loxo ne yàlla kat moo tàllal loxo wax ni nañ jox yonent bi hadiya wax ni nañ jox yonent yàlla Muhammad hadiya plus hadiya boobu itam sunu sëriñ la ne plus hadiya boobu nag sunu sëriñ la kii toog kii fi toog surtout Seydina Mouhamad la surtout Seydina Mouhamad la Mansour oh. demoo màkk lu la fa yóbbu nga di jox li yonent bi ne si si dax mel ne ngeen ñëw waxu loolu waxal li ma ko wax dama ko laaj ndax demul màkk muy jox yonent bi ah, junni Mansour la wax ni ko ndax demul bi ni ko Mansour demoo màkk mu ne ko ah kay mu ne ko ku la fa yóbbu mu ne ko yonent bi mun ko yonent bi nga koy jox junni moo su jox ko lu ah, Mansour Mansour bu ko delloo dollar la génne dollar xam ah, Mansour génne na dollar teg ca waaw ak dollar la cinq dollar lu muy kii dollar li cinq dollar yow ah, a haalata pulaar a haalata pulaar dolli ko dolli ko ñëw leen am hadiya Chérif waaw góor kii laaj fi kanam am am am tel ko waaw góor hadiya Chérif yàq na cam jërëjëf pap jërëjëf jërëjëf pap ba ci kanamam Abdou Aziz Zidou sëñ Sidi Ahmed ne sëñ Sidi Ahmed ne ah. waxtaan Zidou ah, ah. ne ana taal bi Cheikh Ahmed Tidiane sa ami laajal pap luy sa ami ne bu ngeen joxewul mu laaj taalibe Cheikhul Khadim yi. <laughs> Abdou. sën bi yaay nee na nga ñëw. ma ne ko sën bi yaay nee na nga ñëw. ne bu joxewul te yore. li nga yore yal na nuyu. waaw waaw incha allah. ci mbokk yi tal Mouhamad. mbokk Cheikh Ahmed Tidiane. mbokk Cheikh Seydou Mouhamed Malick. mbokk Serigne Babacar Sy.

waaw waaw ndax mu gaaw a dem assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi xam naa kàdduy nuyoo rekk lay doon ñu nuyu ko suñu sëriñ yu tedd yi fa tabaarakallaahu gannaaw bi ñu nuyoo aalu beyti nabi yi toog di sorafa yi ñu nuyu suñu sëriñ yu tedd yii fa tabaarakallaahu jaare ko ci sëriñ mbay si abdul aziz dabbaax ataana allahu baqaahu wa nassarahu wa ayyadahu nuyu mbooleem njabootu maam seydil xaaji maalik ak mboolem jullit bu ñëw ci tànt bi ziyaar ñépp nuyu sëriñ siidi ahmad si ak mboolem ay kilifaam ak i rakkam yépp nuyu sëriñ Abdoul Aziz Mbaye ak ñi mu àndal yépp fa tabarakallahu jaar ko ci bay xaaji Mansour ak xaaji daaw góor xam naa des na tuuti bu ma ñëwatee gàmmu gu Serigne mbay mu baax mii nekk damay seet benn haut-parleur rek ma muuru toog ca wet ga ndax mbaa xam la bayka ah jërëjëf si nee dama ñaanal sëriñam moo ci def lii waaw waaw waaw lii bëgg nee na moom it da koo bëgg moo ci def lii kon dafa mel ni bu doon ni match football la góor ñi dugal nañu ñaar jigéen ñi zéro ma des na tuuti bu ma ñëwee ci gàmmu bu ma séenee sëriñ fa tabaarakallaahu damay seet benn haut-parleur rek ma muuru làqatu fa di déglu ndax dañuy ñëw ci moom ngir jàng waaye gis nañu ni saa bu ñu ñëwee ci gàmmu gis nañu ni saay bu ñu ñëwee ci gàmmu fekk ko ca gàmmu ga ci mbaaxam ci mbaaxam dina tax dina fexe ba la ñépp bëggoon mu wax ko mu dagg ko ngir ni na sama sang bi waxtaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo damay laaj ndax li fi sëriñ doon wax dafa génn yonent bi génn ko de te muy suñu sëriñ di ñu jàngal ba tey fa tabaarakallaahu te bu ñu ñëwee rek occasion bi ñu am pour jàng mooy gàmmu fekk ko muy wax ñu làqatu di ko déglu ñuy bind li ñu mën a jàpp ñu jàpp ko bu ñu demee fu mu nekkul yóbbu ko fa mooy tari ko fa waaye mbaa tax na bu ñu gisee du nangoo wax kon nag ñun fi ñuy mujj mooy bu ñu ñëwee di làqatu waaye xanaa rek comme dafa joxe ndigal sëriñ ñu ngi ànd ak sa doomu baay sa taalibi xaaji Abdallahi Fall kon ni ñu koy defee saa su ne ni nañu wax dara rek ci yonent bi sallallahu alayhi wa ngir ndigal loolu mu joxe rek ñu def ko muy suñu tarbiya gars yi fii fan la Jaksaaw fii mooy Faas Jaksaaw ñun ñépp xam nañu ni li ñuy tudde crème am na lu ñuy tudde crème ci soow moo ci gën a pire bu doon ni Sénégal am na crème bu fi ne dañu naan crème mu Sénégal yépp ñu ci jaar ci loxo maam Seydil Haaji Malick radiyallahu taala anhu fii la maam Haaji Malick tàggate tas leen ci dëkk bi ñoom it ñuy segg di génney crème ca fañu ne rabbi ij'al qaryatana bàyyi man nga ma bàyyi wala manoo maa ma sonnoon رب اجعل قريتنا هذا النعيم جسادا بحبك الكريم رب اجعل قريتنا رب اجعل قريتنا هذا النعيم جكساو نسعه هذا بحبك الكريم عبد العزيز fii maam Seydi dama ne ci muqaddima rek baal ma taxawal noonu rek bul toog waaw maam Seydi El Hadji Malick fii crème mu fii la leen dajale defar leen ba ñoom ñépp ñu doon crème mu tas leen ñii jolof ñii waalo ñii kajoor ñii feneen ñii feneen ku ne ci ñoom di segg kereem ba kereem yi tas tey mais loolu nu mu ko defee dëkk bi wala boog kër gii di kër Maam Seydi Hadji Malick wala boog tariqa bi di tariqa Cheikhuna Tidiane Chérif wala boog diine ji di diine yàlla subhaanahu wa taala diine la joo xam ni kenn mënu koo avancer te jàngoo li ma bëgg a wax mooy senegal léegi bari nañu génn foo génn rek Sénégal bari nañu génn ni ñun daal sëriñ lañu jànguñu dara feruñu it ji mënuñoo liir waaye dañuy defare te rasulillahi li waral maam Seydaaji Malick bi mu jógee li mu jëkk a wax mooy alaa ya bani hada zamani daawtukum li ixyaai diini bil ulumi fa ajibu maam Seydaaji Malick dafa jóge rek dóor ndënd ci waxin ndëggalee ndëndalee eh ala mooy waawee ndax yëgoo ma yëgal la mag ñi ne ko déedéet si looy bëgg yëgle mu ni yéen laay waxal de yéen ñi ma bokkal jamono ñu ne ko Maodo lu xew mu ni kaay leen ñu dundal diine ñu ne ko lu ñu koy dundale mu ni xam-xam rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ni afatu diini salaasa ñetta ngi nii yoo xam ni bu lislaam doonoon sër bu weex dañu naan am na ñetti tâche yu ci am tâche mooy taq-taq am na ñett yoo xam ni diine lislaam bu doonoon benn sër bu weex daga naan am na ñetti taq-taq yu mu taq yoo xam ni boo ko ci gisee rek tâche la fexee la dindi bi jiitu mooy faqiihun faajirun boroom xam-xam bu saay-saay xam nga lu tax boroom xam-xam bu jàngee boo jàngee am nga xam-xam donte nee nañu inna alladi Serigne Touba nee na inna alladi lam yaxsha rabbal alamina laysa bi aalimin ñu ni ko foo sukkandiku mu ni borom bee ni innama yaxsha allaha min ibadihi lulama waaye boo jàngee lu bëree bëri te juboo da ngay mën a def lu boo ko defee ba pare layal ko gisu leen bu yàggul monument bii ci ndakaaru bis bi ñu dajalee ay boroomi xam-xam ña fa toogoon ñépp a jàng waaye bi ñuy ñëwee ngir saxal ko ñuy ñëw ngir weddi ko bu ñuy indee aayaa ki xadis taree tari ba ni araam na ñuy indi aayaa ki xadis tari ba ni dagan na yow mi xamul dara da ngay am problème ku ci wax dënk ku mujjee wax rek nga ni moom moo wax dëgg faqihun faajirun bokk na ci taas gàkk yi nga xam ni moo ne ci diina ji mooy ñi bëgg doon ay mufti di ubbee ci télé yeeg rajo yeeg daayira yeeg fépp tudd daal sëriñ te doon ay kàccoor muy benn Abdou damay def mu xaddima rek maa ngi ñëw ci yow bu ñaareel bi nabi ne bokk na ci gàkki diine ñett yi nga xam ni tâche la ci diine ji bu ñaareel bi mooy imaamun jaa'irun njiit lu jeng Sénégal poroblème bi ñu am xam ngeen lu ñu ko yóbbe mooy suñu njiit yi ñooy sàcc yi déggu leen ma de fii laa ko waxee ci jagsaaw fii fii ci Fass jagsaaw fii maa ko wax nag fii laa ko waxee ci kanamu sëriñ yi tamit laa ko waxee mooy ñu jiitu ñu dénk leen keesi réew mi mais ñooy sàcc yi mais bu ñu demee bëgg ñi ñu dénk kees yi yaakaar leen ci réew mi ngir ñu defar réew mi ñuy sàcc xaalisu réew mi fu réew mi di amee dara maam Abdou nee imaamun jaa'irun yonent bi ni gàkku diine ñaareel bi mooy njiit loo xam ne jubul mais bu ñu demee ba Sénégal senegal ay nit yu taxaw ñu dénk leen xaalisu réew mi bi ñu leen di dénk xaalisu réew mi yore yorewuñu million bu bokk benn buum ñu dem ay fan rek wala ay weer rek wala ay at rek daat ni yore nañu nangami milliard fu ñu ko jële mel ni rek ba ma àndeek sama waaja Abdou dama ànd ak sama benn mbokk waykat ñu dem waxtaani xaw na yàgg xam nga ndonga daara rek day am ak kàccoor ñu dem ci benn nganale màkka ñu waxtaan ci nganale gi nag bu bu may wax muy woy lu ñu ma jox damay denc lu ñu ko jox mu denc bu ñu paree dañuy jël lépp séddoo ci digg bi ñu dem benn nganale li ñu ma jox ëpp li ñu ko jox ma bëgg koo wor woo di waaj a génne ni ko taxawal dama ko fàtte woon amoon naa vingt mille sama poos nëgal ma génne ko mu ni ma mani avant ngay dugal nga ko waroon a wax te wax na dëgg booba ay jamono la woon waaye wax na dëgg booba nag vingt mille newul ci poos bi waaye kon maa koo pële bëgguma ñu séddoo maa jiite waaye maa bëgga wane ak njubadi kon imaamun jaa'irun bokk na ci gàkki diine njiit lu jeng bu ñetteel bi bokk na ci gàkk yi nga xam ni ñoo paralysé diine ji mooy mujtahidun jaahilun nabi nii kuy góorgóorlu di julli rek di woor rek di jéem a def lu baax daal mu ngi ci waaye xamul dara jàngoo dara aarifuuni qabla an taabuduuni fa in lam taarifuuni fa kayfa taabuduuni boo jëmee jagsaaw da ngay ànd ak ko xam jagsaaw baa nga laajte fan la yoonu jagsaaw ne ñu wan la ko boo xamul fu jagsaaw ne boo ñëwee ba pir nga kilomètre gauche jàdd génn ji àndolaay ngay def waaye doo ñëw jagsaaw suñu borom ne mam xaadima jaxate kala dafa toog benn bis góor gu baax googu tëdd benn taalibe bu ko bëgg lool ñëw di ko bës di bës maam xaali ndekete maam xaali am na benn taab taalibe bi léeg-léeg rek mu jàpp ci taab bi bës di bës rek maam xaali di onk waaye du ñi mee wax ndax nee na teraanga ji may defal bëgguma ko wax yaa ngi may gaañ muy rus nee na waa ji di ma bës di ma bës ba yàgg taab bi toj deret ji tàmbali génn waa ji ni ma i eh, sëñ bi nekk te dangaa ngaa taab ma ne ko defoo dara mu sëñ bi mënuma ko woon a wax mu ni dama la koy bañ a wax nga rus waa sëñ bi lu tax mu ne ko coow li yépp mooy dangaa xamul li ne ci man tey wut lu ma neex mu ne ko waaye yow lii nga ma def garaawul xam nga fan laa ragal mooy ñi jëm ci yàlla di wut lu neex yàlla te xamuñu li yàlla bëgg ak li yàlla bañ bari na lu ñu xuus rek nekk ca fekk mbugalum yàlla rek moo leen tey fekk waaye duñ ci am dara yàlla xaaral ali fas nabi ne mujtahidun jaayilun jàngoo ba pare di góorgóorlu gaay léegi nag bari na maa ngi ñëw Abdou ci yow laa jëm ci yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa léegi nag loolu bari na xam nga mooy lan dañu imam Maodo Sylla yàlla na ko yàlla yërëm dafa génn àdduna julli gi njëkk mu am imam bu bees bu ñuy wax Ali Moussa sàmb mu jiite bi mu jiitee julli ñu dem ba boori ngoon heure bi ñuy baaloon baaloonte àq ma seeti sama benn waay joo xam ni sëriñ la lu tax ma ni sëriñ la mooy ci njabootu sëriñ la bokk ñu toog di waxtaan ba mu yàgg mu ne ma ndakaaru am nañu imam de léegi ma ne ko aha mu ni ma wuu imam bu ne jiite na fi waaye bii mësu fi am ma ne ko lu tax mu ni ma saar yi ma dégg mu di ko tari saar yu roqee noonu ba ma nekkee Sénégal ba tey masumaa dégg sëriñ bu ko tari ma ne ko waaw yan saar la tari mu ne ma wow saar yu roqe man kay mënuma la ko expliquer ma ne ko saar bi ban la amul dara loo ci jàpp mu ni ma waaw jàpp naa ci daal mu wax ay xee wee lee yooyu daal laa ci jàpp ma ni ko est-ce que du sabbih isma rabbika laale alladi xalaqa fa sawwee walladi qaddara fa hadee mu ni ma saar baa ngoog mais foo ko xamee ma ni ko man ma bokk ci gaa yi ci ruq bi mbokki julit yi à suivre wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu sëriñ bi ñaanal defee nag yal na ñu leen yàlla fayal yal na ñu leen yàlla fayal man dama dama du ni mbub mi dama kii waaye dama ragaloon a sol lu jóge ci ci ñoom tabaarakallaahu yal na leen yàlla fay fay sunu shérif bi fay ñëpp nag.